assalamualaikum asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa àddina bi man la man la Ouzin Keita maa demoon taati ni ñëw jëf benn benn benn spectacle ñu fay ma xaas bi ma xas sama président bu ma ko nangu ndax président mooy suñu kii vraiment président wax ndax Macky Sall dafa dafa dëkk bi macha allah dëkk bi bu baax jabaram mi nga wax fi ñaaw ñaaw am am am yërmaane si am yërmaane si defal dëkk bi Sénégal kenn sonatul ñu feebar nag Macky Sall fay Sall mu ngi leen jàppale Macky Sall dafa dafa dafa ëttu APS bi dafa illaa Touba dafa lépp ñun naan amul waa ko seen Touba kon boog man du dem fenn kenn ma diigal ñi ma ànd na duñ leen bëgg a dee na ñoom tañoon suñu biir ko man man man man fay wax fa man allez Macky la wax